ñi nga xam ne fi leen ak ñi nga xam ne nekkuñu fi. ak ñi nga xam ne fal yuballigu asaahidu minkumul xaayiba. ak ñi xam ne fal yuballigu asaahidu minkumul xaayiba. moo leen a yëgal xëllëg. moo leen a yëgal xëllëg. mu ne yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama. kere waxee kàddu waxee kàddu yi ko ñor ba pare. dafa dafa wax na ku fekkee na nga nettalil ku fekkee wut. ko fekkee wut gis nga ko fekkee wut noonu la. tey nettalil ko. tey nettalil ko. mën naa mën naa am. mu daaxaa takk sax ki nga xam ne moo ko nettalil. mu daaxaa takk sax ki moo ko nettalil. moo tax maa ngi nuyu ñoo moo tax mu ngi nuyu ñu xam ne. ëpp nañ jotaay bi. ëpp nañ jotaay bi. waaye ci njaboot bi lañ bokk nag. waaye ci njaboot bi lañ bokk nag. keneen ku koy déglu. keneen koy déglu. xamal ne. xamal ne. ki wax ni le. ki de wax ni le. njabootam laay waxat. ña de njabootam ñoom ñëpp. njabootam ñoom ñépp war nañoo mën war nañoo mën a xam. la may wax. ndax bokk bu bokk ñoom daara. ndax bokk bu bokk ak ñoom daara. keneen nag. keneen nag. mën na caa jëriñu. mën na caa jëriñu. bu mu xamut. bu ci gisee nag lu mu xamut. bu mu gaa wax ne du mu gaa wax ne du nii. day wax ne. day wax ne. ki da wax ni la dee. ki wax ni la dee. gannaaw man bokkuma ak moom daara. man ak moom daara. mën naa wax lu ma xamut. mën naa wax lu ma xamut. waaye nag bu mu wax ne. waaye nag bu mu wax ne. gannaaw man bokkuma ak moom daara. gannaaw man bokkuma ak moom daara. li mu wax nekkut. li mu wax nekkut. kon maa ngi nuyu mbokk yëpp. kon mu ngi nuyu mbokk yëpp. muy waxtaan yi nga muy waxtaan yi nga xam ne baaxoon nañ ko fi waxtaanee. jotaay bu mel ni bii. jotaay bu mel ni bii. tey nag li ñuy waxtaanee ñëpp ci am soxla. tey ci wàllu xeete. ci wàllu xeete. ñëpp jàngalekat yi ñoo ci am soxla. jàngalekat yi ci wàllu jë wàllu jëfee. te mooy njàngin yi xuute yi. nekk ci daara yi léegi ñu jaate fa mu tàmbalee woon. ñu jaate fa mu tàmbalee woon. jaat bu gaaw. jaat bu gaaw. door a ñëw ci li nga xam ne moom lañ ci bëgg a wax. door a ñëw ci li nga xam ne moom lañ ci bëgg a wax. rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu fiy bàyyi ko. muy rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam bi mu fiy bàyyi ko. alquran lépp lépp lépp wàcc na. alquran lépp lépp lépp wàcc na. waaye ñi nga xam ne nii ñoo ko mokkaloon. waaye ñi nga xam ne nii ñoo ko mokkaloon. lim bu <coughs> lim bu néew la woon. lim bu néew la woon. lépp nag mokkal nañ ko. lépp nag mokkal nañ ko. lépp bind nañ ko. lépp itam bind nañ ko. waaye doxam da dox dajeeg nit. waaye da dox dajeeg nit. mu ne bind naa lépp. mu ne bind naa lépp. amuloon ci jamono ci jamono joojale. da dox dajeeg nit. da dox dajeeg nit. mu ne mokkal naa lépp. mu ne mokkal naa lépp. xamoon na. xamoon na. waaye itam nag bëriwutoon lool. waaye itam nag bëriwutoon lool. ba mu defee njàng yi tasaaroo. ba mu defee njàng yi tasaaroo. xare boo xam ne nii Seydina Babacar. xare boo xam ne nii Seydina Babacar. dèjà yónni woon Husayfatul mun Yamaani. dèjà ba mu ñu see ca xare ba. ba mu jaarul këram. jaarul këram. ci kër Seydina Babacar la jaar. ci kër ko man mi demoon ci xàll bi. ne ko man mi demoon ci xàll bi. tiitaange laa indi xaale. tiitaange laa ñaa ngi ci xàll bi. nit ñaa ngi ci xàll bi. ndeketewoo ni ñuy jàngee alxuraan bokkut. bokkut. te kenn ku ne. nana na muy jàngee moo gën na keneen di jàngee. nana eh, gaawal nga xeet nit ñi. gaawal nga nit ñi. kaamil bi nañ ko bind. kaamil yi mu nekk nii. dënn yi mu nekk nii. ñu doyloo ne mokkal nañ mokkal nañ ko ci dënn yi. doyut ci de. nañ ko bind. nañ ko bind. ne ko. nan laa da laa nan laa loo xam ne. loo xam ne. yonent ko woon. te bàttaliwut ko woon itam. ko topp ak moom. mu da ko moom. da ko topp ak moom. ba yàlla def mu gis ko. ba yàlla def mu gis ko. boobu Seydina Omar mu ngay jàppale Ababacar. mu ngay jàppale Ababacar. ci xalaat bi nga xam ne moom la bi nga xam ne moom la Xuseyfatul Yamaan wax. alxuraan jile. mooy alxuraan jile. dënn doy ci de dënn doy ci kóllëre. nañ ko bind. nañ ko bind. ba mu ko defee bañ ba ñu bëri d'accord ci. ko defee bañ demee ba ñu bëri d'accord ci. ñu xaw Seydou Ibnu Saabitin. naa bindal yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam. ko Seydina Babacar dafa bëgg ñu bind kaamil bi. ñu kaamil bi ko dañoo bëgg nga bindal ñu kaamil bi mu joxoon leen doj wu rëy rëy ne su ngeen ma waxoon ne ma leen toxal leen moo gën a yomb ci man ngeen bëgg maay def la loolu xam ne yonent bi defut ko woon Seydina Babacar topp koog moom topp koog moom ba mujj nangu mu ne ko léegi dangay dem toog ci buntu jàkka ja. dangay dem toog ci buntu jàkka ja. mboolem ñi mokkal dara ci alxuraan. mboolem la fa fekk. ko dicté. bu ko defee nga bind ko bi ni war a toftalee. bu ko defee bi ni mu Saabitin dem toog ci buntu jàkk ja. kaa ngi da ko fa fekk. te moom moom moom Seydou. kenn ci ñu mokkal alxuraan ci la bokk. kenn ci ñu mokkal ci la bokk. kenn ci ñu yonent bi yar ci la bokk. ci la bokk. kenn ci ak yonent bi la bokk. ak yonent nee na ko. fa nga toog noonu la. noonu la. kaa nga fa tëri dara. kaa fa tëri dara. na ko keneen tëri. na ko tëri. ko nam ko tëree. nga door koy bind. nga door koy bind. waaye bul doyloo tërim kenn nit. tërim kenn nit. foofu la tàmbali liggéey ba. tàmbalee ko ci Fatiha. tàmbalee ko ci Fatiha. ba keroog ba may xàggee naasi. bi kaamil bi paree. moom mu yëg ne. ba tey maa ngi mokkal ay joo xam ne. ba tey maa ngi mokkal ay joo xam ne. Eh, kenn indeegut ko. ko. waaye comme dañ waxoon ne ma. waaye waxoon ne bul bind ci sa mokkal. bul bind ci sa mokkal. bindal lu nit ñi mokkal. bindal lu nit ñi mokkal. ba léegi kenn indeegut ko. muy tagandaamu. muy tagandaamu. ba xusay matu nu saabitin. ba xusay matu nu ñaar nag bokkuñ saabit. waaye ku ñëw xusay matu saabitin. waaye ku ñëw xusay matu saabitin. moom ñoom ñu ne ko looy tëri. ñoom ñu ne ko looy tëri. mu tëri la jaakum. mu tëri laxad jaakum. ko na ko Seydou Saabitin mokkalee. tëree ko na ko Seydou nu Saabitin mokkalee. muy seereem ñaareel. muy seereem ñaareel. seereem ñaareel. ñaareel. yàkkamti nañ ko. yàkkamti nañ ko. ñu ne. ñu ne. Xusey Xuseymatu nu Saabitin mii. Xuseymatu nu Saabitin mii. ba yahood ba. toppee yonent bi seqee yonent bi gëlëm. ba yowut ba seqee yonent bi gëlëm. te yowut bi ne moomam gëlëm gi te yonent bi gëlëm gi gëlëm yonent bi. te yowut bi ne moomam gëlëm gi te gëlëm gi gëlëm yonent bi la. ñu ne dañuy wuti seede. ñu ne dañuy wuti seede. xuseymatum saabitin mii. xuseymatum saabitin mii. moom la yonent bi taxawaloon. moom la yonent bi taxawaloon. mu taxaw taxawaayu ñaari seede. mu taxaw taxawaayu ñaari seede. comme ci gëlëm ga. comme ci gëlëm ga. moom lañ taxawaloon mu taxaw ñaari seede. moom lañ taxawaloon mu taxaw taxawaayu ñaari seede. kon aaya joo xam ne bu yàgg ba tey Zayd ibn Saabit mu ngi koy kon aaya joo xam ne bu yàgg ba tey Zayd ibn Saabit mu ngi koy wut. waaye sañu koy bind ndax gisul ku ko ñaareel. waaye sañu koy bind ndax gis ku ko ñaareel. boo xuseymatum saabitin indee. boo xuseymatum saabitin indee. war nañ ko koo nangul. war nañ ko koy nangul. muy laqad jaakum rasulun min anfusikum. muy laqad jaakum rasulun min anfusikum. aaya jooju ci kaamil boobale. aaya moom lañ ca mujjee bind. ba ñuy bind kaamil ba nag. wutee guñ doon wutee ñoomu neen. wutee guñ doon wutee ñoomu neen. sóoratu lan faal. sóoratu lan faal. moo di gudd. moo di gudd. moo di gudd. moo di gudd. ba ci suratu yunusa. ba wala suratu lan faal. wala suratu lan faal. noonu. guddeewul noonu. la ko taxa gudd. la ko tax gudd. suratu tawbati la. suratu tawbati la. wuute ci wuutee moo tax. wuute ñu bind suratu lan faal. ñu bind suratu ci bismillaahi rahmaani rahiim. def ci bismillaahi rahmaani rahiim. tawbati. duñ ci def bismillaahi rahmaani rahiim. duñ ku gis sóoratu bi. ku gis sóoratu bi. xànn ngaag. xànn ngaag. ka waxoon ne ñaari saar la. ku gis ñàkk basmala gi. ku gis ñàkk basmala gi. ngaag. ka waxoon ne. ka waxoon ne. lan faal. ak sóoratu tawbati. benn saar la. benn saar kaamil boobu nag nekk fi. moo koy wattu. Seydina Babacar moo koy wattu. mooy mooy delluwaayu kaang yi. mooy delluwaayu kaang yi. waaye kaang yi ñoom ñu ngi wéyale. waaye kaang yi ñoom ñu ngi wéyale. ci biir eh, xaalamul islam. ci biir xaalamul islam. di jàngale ci seen dënn yi. da jàngale ci seen dënn yi. da jàngale ci seen dënn yi. da jàngale ci seen dënn yi. da jàngale ci seen dënn yi. da ko jàngale. da ko jàngale. ba xilaafaak. ba xilaafaak. ba xilaafaak eh, eh, Seydina Omar jeex. ba xilaafaak Seydina Omar jeex. xilaafaak Seydina Ousmane ñëw. xilaafaak Seydina Ousmane ñëw. ci jamono xilaafa Seydina Ousmane nag. ci jamono xilaafa Seydina Ousmane nag. moom itam la xewoon dell moom itam la xewoon dell xewati rek. ñu dem ci jihaad bi. ñu dem ci jihaad bi. sori màkk lool. sori màkk lool. sori mbir na lool. ñoo dëkk ci Seydina Ousmane. ñoo la daloon yahood ak nasaraan. naka ci seen téere bi. wutee ci seen téere bi. ba kenn xamatu lu ci ci dëgg. mu ngi ñoo yor de. alxuraan jii de. nekk ci xàll yu sori yi. ñi nekk ci xàll yu sori yi. ñu ngi ciy lool lool. ngi ciy wute lool lool lool. na nga bind kaamil. na nga bind kaamil. yónnee ko ci gox yi. yónnee ko ci gox yi. su ko defee. su ko defee. njàngin yëpp mën a nekk yëpp nekk mën a nekk mel ni njàngin. Seydina Ousmane. Seydina Ousmane. diisu. diisu. fukki junne. fukki junne. ak ñaar ak ñaar. ci saxaaba ci saxaaba. ci xalaat boobu. ci xalaat boobu. ndax moom. ndax moom. sañ naay bind ay kaamil. sañ naay bind ay kaamil. tasaare ko ci biir gox yem déet. tasaare ko ci biir gox yem déet. benn xamaguñ bu bisu tay ko wax. mu ne bu bisu tay bi xamaguñ. bindkat wax ne ba léegi. bindkat yi mujj bind ñoo wax ne ba léegi. xamuñ ko xam ne wuute woon na xam ne wuute woon na ak Seydina Ousmane ci loola. ba mu ko defee ñu jëlee kaamil ba nga xam ne. ba nag ñu jëlee kaamil ba nga xam ne. moom lañ bindoon te ñu ngi koy wattu ba léegi. moom boo xam ne Seydina Babacar. gannaaw boo xam ne na fi. bàyyeekoon na fi. bi moo yore woon. xalifa bi moo ko si yonent bi. soxna te bi. te doomu xalifa bi. muy Hafsa. muy Hafsa. mooy yore woon kaamil bi. Seydina Ousmane ba mu ko soxlaa. mu yónnee ci Hafsa. mu yónnee ci Hafsa. ne ko kaamil boobule. ne ko kaamil boobule. de kaamilu cosaan bi. dañu bëgg nga xamal ñu ko. dañoo ñu ko. ñu bind ci ay kaamil. tasaare ko ci gox yi. ko ci gox ñu def ko muy seen sukkandikuwaay. ba mu ko defee Seydina ndaw ci tànn ay ndaw ci Quraysin. tànn tànn ay ndaw ci Lansaar. boole leen ci boole leen ci mbooloo. mbooloo ma. mbooloo mu jiital ci Seydou Moussa Saabitin. mu ne leen dem ngeen toog ci jàkka ja. ne leen ngeen toog ci jàkka ja. ngeen bindal ma juróom ñaari kaamil. mooy lim bu gën a bari ci bu ñu wax. mooy lim waaye juróomi kaamil dañ ko da wax. waaye juróomi kaamil dañ ko da wax. waaye juróom-ñaar mooy lim bu gën a bëri ci li wax. gën a ci li wax. moo wax Seydou Saabitin ne ko. ne ko. yow nag. yow nag. waa Lansaar nga. waa nga. yaa jiite mbir mi. yaa jiite mbir mi. waaye la waa nga. waaye waa Lansaar booleet. waa Quraysin lañ waa Quraysin lañ. te alxuraan ji. te alxuraan ji. mu ngi wàcc ci luxatu Quraysin. mu su ngeen hutee. su mi dëkk Lansaar. fekkil waa Quraysin. fekkil waa nekk ci liggéey ba. nekk ci liggéey ba. nekk ci hutee bëri hut. hutee amee itam. boo day fekk waa Quraysin. Seydou Seydou mu ne. Seydou mu ne. bi ñëwee si bi ñëwee ci fakk si fii fi taabuuti. fakk si fii fil yemmi. fakk si fi taabuuti. fakk si fii fi taabuuti. mu ne leen. mu fi fi taabuuhi. ñoom Quraysh dogu ne. ñoom Quraysh dogu ne. fakk la. fakk si fii fi taabuuti la. ma dogu ne. ma dogu ne. faqsi fiihi fi taabuuhi la waaye bañ toppee mbir ma waaye bañ toppee mbir ma ba yóbbu ko ci Seydina Ousmane ba yóbbu ko ci Seydina Ousmane Seydina Ousmane fàttalil ko la mu ko waxoon fekki leen ñoom Quraysin ci seen làmmiñ la wàcc baat boobu rek la wuteeg ñoom te dëggalu ci la nga xam ne moom la xamoon te dëggalu ci la nga xam moom la xamoon ñu bind kaamil ya tasaare ko saare ko jël ci benn boo xam ne moom moom lañ wàccee Seydina Ousmane jël ci benn boo xam jël ci benn jël ko ci jàkkaay Madinatul Munawwara wàcce ko ci jàkkaay Madinatul jël benn jël benn benn jël benn waxaale mu ne waxaale na ñett jël benn yóbbu ko Kóofa jël benn yóbbu ko Kóofa jël benn. jël boo waxee ne juróom la. boo ngaay xem. foofu la. boo jël benn. ko Yaman. yóbbu ko Yaman. boo jël benn. ñu jël ko defee juróom-ñaar seen maam Alaaji Elifaatu mu ne. mu ne. li ngay xamee ni ñàkk kilifa baaxut. li ngay xamee ni ñàkk kilifa baaxut. waxtu wu yéen a ngi gis jàngin boo ne. waxtu yéen a ngi gis jàngin boo xam ne. ñu ne jànginu Medina la. ñu ne jànginu gis jàngin. gis gis jàngin. gis jàngin. ak Kóof. ak Kóof. ak Misra. ak Misra. waaye tënna leen. waaye tënna leen. ngeen gis jàngin boo xam ne. ngeen gis jàngin boo xam ne. dañ koy askanee Bahrayn yi. dañ koy askanee Bahrayn yi. mu ne ñàkk kilifa moo ko waral. mu ne ñàkk kilifa moo ko waral. kaamil ba demoon Bahrayn yi. kaamil ba demoon Bahrayn yi. dafa amutoon kilifa gu ko xaar. dafa amutoon kilifa gu ko xaar. seen maam wax na loolu. mu ne seen maam wax na loolu. mu ne li nga xam ne ñàkk kilifa baaxul. baaxul. kaamil yooyu yépp ba léegi yaa ngi gis njàng mu ci askanu. ba léegi yaa ngi gis njàng mu ci askanu. waaye kaamil ba nga xam ne lañ ko yóbbu woon. ba nga xam ne ko yóbbu te amu doon kilifa ku ko xaar. te amu doon kilifa ku ko tay bii. ba bisu tay bii. gisoo njàng nu jaay askane. Moussa Ba Ousmane boobu nag. jàngkat liirkat yi pour topp liirkat yi dañ ci xam naxu. liirkat yi dañ cee xam naxu. dafa am benn Ousmane moo xam ne. dafa am benn Ousmane moo xam ne. dafa bokk ci bindkat yi mën a bind lool. dafa bokk ci bindkat yi mën a bind lool. bind kaamil. bind kaamil. te ba mu yàggaat ba mu ko bindee yàgg na. te ba mu ko bindee yàgg na. ñu mool ko mool bi tasaaroo. ñu mool ko mool bi tasaaroo. nga da dox a dox. ba gis ñu naan kaamil bi ba gis ñu naan kaamil bi le. bi xatti xosmaan. bi xatti xosmaan. gis nga xosmaan moomu. gis lu mooy njaada. duhul lu mooy njaada. njaada mooy ku ràññee ko ci mbind. njaada mooy ku ràññee ko ci mbind. siiw ca siiw ca. ba ñëpp nangul ko ko. Usmaan moom ngay gis ci ci feggali alxuraan yi. Usmaan moom bi xatti Usmaana. ñu bi xatti Usmaana. du Usmaan ibn Affaan de. benn njaada bu rafet mbind. bu rafet mbind. te ba mbindee yàgg. te ba mbindee yàgg. te mbind ñu dem a dem da ko luñutu. ñu dem a dem ba gis kaamilam yu njëkk ya. ñu mool ko tasaare ko. ñu mool ko naan bi xatti Usmaana. naan bi xatti bu siiw la woon. benn njaada bu siiw la kaamil yooyu nag moo tasaaroo ci gox yi. kaamil yooyu nag moo tasaaroo ci gox yi. gox bu ne. gox bu ne. jël kaamil bu fa Seydina Ousmane yóbbu woon. jël kaamil bu fa Seydina Ousmane yóbbu woon. def ko muy seen sukkandiku waay. def ko muy seen sukkandiku waaye gis nga kaamil yooyu ñu yóbbu ci gox yi. waaye gis nga kaamil yooyu ñu yóbbu ci gox yi. jamono yi ñu koy bind. jamono yi ñu koy bind. boobu tomb xewagut. boobu tomb boobu boobu bindee bismillahi rahmaani rahim. baa gi doo ko tomb. baa gi doo ko tomb. yaa ngi doog a tomb. rahim yi yaa ngi doog waaye da ko defal bëñ. waaye boo bindee aalamiina. yaa ngi fi ngi fi muy toll. doo ko tomb. doo ko tomb. waaye da ko defal bëñ. waaye da ko defal bëñ. su tomb nekk rek. su nekk rek. da ko defal bëñ. da nga ko defal bëñ. moo tax seen maam. mu ne moo tax seen maam. boo daan seetlu ci xalawa. boo daan seetlu ci xalawa. boo daan seetlu ci moom boo daan seetlu ci moom xalawa. Eh, moo am tomb boo xam ne tomb nga ko waaye defaloo ko bëñ. moo am tomb boo xam ne tomb nga ko waaye defaloo ko bëñ. dalay wax ne la. dalay wax ne la. bi mën da ñàkk. ndax ba tomb ndax bu tomb xamut. ba tomb xamut. bi moo fi bi moo fi newoon. di mm, tomb bi. di mandargaal tomb bi. kaamil yooyu xamut ko de. maas itam xamut ko de. ki bind bismillaahi rahmaani rahiim. du ki bind maliki. ki bind bindee maliki. ni ñuy bindee maliki. ak ni ñuy bindee malaka. ak ni ñuy bindee malaka. ak ni ñuy bindee maluka. ak benn la rek. ndax ñoom arab lañ. mbind moomu mën nañ koy mën nañ koy jàng. loolu de tasaaroo. da saaro da saaro ba ci jamono ba ci jamono Muawiya ibn Abi Sufyaan Muawiya ibn Abi Sufyaan ci jamonoy Muawiya ibn Abi Sufyaan nag lakkat yi bëri lool ci diine ji lakk lakkkat yi yi bëri lool ci diine ji lakkkat yi lool ci diine ji ñi duut lool ci diine ji ñi duut arab lool ci diine tombuñ ko. naaraaw yebeem njàng mbind moo xam ne maasuñ ko tombuñ ko. ñoom yebeewuñ ko ko. ñoom yebeewuñ ko ko. te lu toll noonu. te lu toll noonu. buur bi jullit képp moo ci mën dara. buur bi jullit képp moo ci mën dara. te naa ba mu ko defee. ba mu ko defee. bu ñu ko tawatalee Muawiya ibn Abi Sufyaan. bu ñu ko tawatalee Muawiya ibn Abi Sufyaan. mu xoo Abul Aswad ad-Duwali. mu xoo Abul Aswad ad-Duwali. moom nag mooy ki nga xam ne. moom nag mooy ki nga xam ne. mooy njëkk jëlee li ñu doon xam-xamam nawu ci Seydina Ali ibn Abi Talib. moo njëkk jëlee li ñu doon xam-xamam nawu ci Seydina Ali ibn Abi Talib. ndax ci xam xam-xamam nawu. mooy. alkalaamu. alkalaamu. kulluhu. kulluhu. ismun. ismun. wa fiilun. wa harfun. wa harfun. loolu abu al aswad doole yi moo ko jàng ci Seydina Ali. loolu abu da ko tasaare ba mu toll fi mu toll tey. da ko tasaare ba mu toll fi mu toll tey. te ne xalifa bi nag xoo ne ko alxuraan jile. ne ko alxuraan jile. na ko maas. na ko maas. ndax yàq yi bëri na. ndax te dafay gën di tasaaroo rek. te li ko sabab. te li ko mën a dindi kon. li ko mën a dindi kon. mooy nañ ko maas. mooy nañ ko maas. nañ ko tomb. nañ ko tomb. nañ ko maas. nañ ko maas. Abul Aswad Adduwali ne ko. loolu de ñemewuma ko. ko. alxuraan ji. alxuraan ji. tombuñ ko woon. tombuñ ko woon. ma da ko tomb. ma da ko tomb. maasuñ ko woon. maasuñ ko woon. man de ñemewuma ko. man de ñemewuma ko. waaye Muawiya. waaye Muawiya. moom moom dafa jàngale woon boppam. moom dafa diggante ak nit ñi. bu ci tàqee ak fàll nekkoon. bu ci tàqee ak fàll nekkoon. du dog mukk. du dog mukk. mu mu mu bu ñoddee. ndax bu ñoddee. moom mu yoxamal. moom bu yoxamalee. moom mu ñoddi. moom mu ñoddi. tàqee ak fàll nag. tàqee ak fàll nag. xëccoo moo koy dagg. waaye li mu yoxam yoxam noonu. waaye li soo xëccoowut. soo xëccoowut. du dagg. du dagg. waaye lu lu mos a dogu ci nit. nit ko dana ko ko defal. nit ko dana ko ko defal. bu gàntalee. bu gàntalee. nekk jamono. nekk jamono. mu xaar ba beneen jamono. mu xaar ngir meer mu neexal ko ba mu féexal. mu neexal ko ba mu féexal. bu ko ngir rëy. mu taxaw mu toroxlu ci kanamam. waaye moom. waaye moom. lim doogu moom da ko def. lim ko def. benn yàkkamti nag la ci amut. benn yàkkamti ba mu ko defee. moom Muhaawiya mu laajte ne. moom Muhaawiya mu laajte ne. nañ ko toppal dëkk bi. nañ ko toppal dëkk bi. lu ñutul ko fi. lu ñutul ko fi. ki nga xam ne. ki nga xam ne. moo fi dàqa yàq baat. moo fi dàqa yàq baat. ñu di ko ko wutal. ko bu wutal ko benn waay boo xam ne. bu xam ne. du jàng mukk njàng jàng mukk njàng mu aw yoon. ba mu ko defee ñu indil ko ko. ba mu ko defee ñu indil ko ko. abu la soo doyalee. abu la soo doyalee. du tàgg du ñàkk a dem jàkk mukk. du ñàkk a dem jàkk mukk. moo waayi ne ko. moo waayi ne ko. demal nga toog ci yoon wi nga xam ne. toog ci yoon wi nga xam ne. moo nekk diggante kër Abul Aswad Duwali. moo nekk ci diggante kër Abul ak jàkka ji. ak jàkka ji. nga toog foofu da jàng alxuraan. nga toog ci diggante boobu da jàng alxuraan. mu toog ba Abul Aswad di. mu toog fa moom waa ji Abu Lasbat da julli ji mu dégg ko mu ngi jàng mu dégg ko mu ngay jàng baraatun min allahi wa rasulihi baraatun min allahi wa rasulihi ba ji wa an allaha ba ji wa an allaha bariun bariun min al wa rasuluhu wa loolu mooy sawaab loolu mooy sawaab waaye yàqkatu baat bi nag. waaye yàqkatu baat bi nag. jàng ko. jàng ko. waa na laaha. waa na laaha. bëri um. bëri um. minal musrikiina. minal musrikiina. wa rasuulihi. wa rasuulihi. muy nag musiba mu rëy rëy rëy rëy. boo ko firee. boo ko firee. li may tekki mooy. li may tekki mooy. yàlla dañ na ci xeeféer yi. yàlla dañ na ci xeeféer yi. waaye dañ na itam ci yonentaam bi. waaye dañ na itam nag ci yonentaam bi. abul aswad waaye demul jàkka ja de. am na abul aswad demul jàkka ja de. dafa dëpp de. dafa dëpp de. dem ci Muawiya ne ko. dem ci Muawiya ne ko. li ngay santaane. li ngay santaane. noo ko bëggee. noo ko bëggee. <laughs> gisal na boppam li ñëpp gis. mu ne gisal na boppam li ñëpp gis. waaye teewul nag mu ngi ko ragal ba tey nag. waaye teewul nag mu ngi ko ragal ba tey nag. mu ne ko Muawiya danga may wutal koo xam ne. mu ne ko Muawiya danga may wutal koo xam ne. Eh, ku am xel laay doon. ku am xel laay doon. soo jàngee. su su ma jàngee su ma dajee. moo xam moo xam ne masque lonk la. su sama gémmiñ fi ubbeekoo. moo xam ne masque ak kaw sama làmmiñ ak sama gémmiñ tasaaroo. su sama làmmiñ ak moo xam ne masque ak suuf la. mu dimbalanteeg kooka. mu dimbalanteeg kooka. da dimbalanteeg kooka. ba kaamil bi pare. ñu tasaare ñu tasaare ko. waaye fekk na nag. waaye fekk na nag. jaawale ji yaxlamuuna ak taxlamuuna la jaawale ji ak taxlamuuna yomb. jaawale ji ñaari baat yoo benn bi dafa am alif jaawale ji ñaari baat yoo xam ne benn bi dafa am alif ak benn bi amul alif. jaawale ji yuqaadi hoona jaawale yomb. jaawale ji yuqaadi yomb. yomb googu nag. yomb googu nag. ci la wuute kaa ngi tàmbalee da tasaaroo. ci la ndax yu xaade woon soo ko maasulee. ndax yu xaade woon soo ko maasuloo ko. wax dëgg mbind mi menn la. wax dëgg mbind mi menn yi xiraat yi yëpp. li ci ëpp. li ci ëpp. boo ne jàkk xarab yi. jàkk xarab yi. benn lay doon. waaye bu fekkente ne maas nga rek. waaye bu fekkente ne maas nga rek. boobu lay wutee. boobu lay wutee. kaamil yi nag tasaaroo ci yi ñu di ko jàngale. kaamil yi bu ne xam kaangam boppam. léegi nag maas nañ ko yooyu nag. kaamil yooyu nag. ak yéex a maas gi. ak yéex a gi. ak yéex tasaare gi. ci la xiraat yi njàngin yu wuute yi yu juddoo. yëpp nag. yëpp nag. ñu naan ko xiraatu same njàngini juróom-ñaar. ñu naan ko xiraatu same mooy njàngini juróom-ñaar. ñeneen ñi naan xiraatu xas njàngini fukk. ñeneen ñi naan xiraatu xas njàngini fukk. ñeneen ñi wax ne. ñeneen ñi wax ne. ñi wax ñi wax ne njàngini juróom juróom-ñaar la. ak ñi wax ne fukk la. ak ñi wax ne fukk la. ñoo réeral nit ñi. ñoo réeral yi kay. xiraar yi kay. ëpp na loolu. ëpp na loolu. xanaa dafa fekk rek. xanaa boo dee juróom-ñaar. na juróom-ñaar. da wax ne jàng na diw sàngam. da nga wax ne jàng na diw sàngam. ba am juróom-ñaari kaang. boo ne fukk. boo ne fukk. da ngay jàng na diw sàngam. da nga am fukki kaang. waaw yaa ngi dese yeneen kaang. waaw yaa ñoo xam ne ñi nga xam ay jàngin. yoo xam ne yu ràññeeku la. te tuddoo leen. kon ku ko xutal lim. kon ku ko lim. lim na lu limuhut. waaye nag il faut nag ñu xam. waaye nag il faut nag ñu xam. lim boo xam ne buñ ci lim boo xam ne buñ ci dañuy taxaw. ndax lu ko mooy ngërmaande li day jéggi dayo moo tax juróom-ñaari njàngin moo ci gën a siiw yàlla dajal nag yàlla dajal nag gox bi ñu dëkkee gox bi ñun ñu dëkkee te mooy soxu jant te mooy soxu jant seen laxas jàngi seen laxas jàngi Medinatu Munawara da cee notoon Medinatu notoon da notoon yàlla dajal naafeexo jàkka yonente bi fi la daan jàngalee alxuraan. jàkkaay yonente ñu bari da koo fekk. koo muy ko xam ne rewaayaam soriwut fenn. muy fenn. diggante ak ubbi yum nu kaxabin. diggante diggante ak ubbi yum nu kaxabin. ci sukkandikoo. moom ci ubbi yum nu kaxabin laay sukkandikoo. Madinatu Munawwara nag moo doon jàngalee kaayam. Madinatu nag moo doon jàngalee kaayam. yàlla baaxee ko. yàgg na ci njàngale. ci njàngale. waaye ñaar ñi gën a siiw ci ay taalibeem. waaye ñaar ñi gën a siiw ci ay taalibeem. kenn ki war sa koy lañ koy wax. kenn ki ñu ngi koy kenn ki ñu ngi koy wax xaaloon. fële ca Koofa. fële ca Koofa. nañ fa kaamil. yóbbu woon nañ fa kaamil. comme ni ñu ko waxee woon ci gannaaw. comme ni ñu ko waxee ci gannaaw. moom itam xaasim. moom itam xaasim. moom itam foofu la moom itam foofu la jotaayu. da jàngale alxuraan. nit ñi da koo fekk. moo dem ñi gën a ràññeeku ci taalibe mi. ñaari taalibeem ñoo ci gën a ràññeeku. kenn gi xafsa lañ koy wax. ci dajal yàlla nag. ci dajal yàlla nag. juróom-ñaari kaamil yi. juróom-ñaari kaamil yi. juróom-ñaari kaang yi. juróom-ñaari kaang yi. ñoom ñëpp seen jàng tasaaroo ñoom seen jàng tasaaroo na. waaye nag fii ci suñ gox bi ñun. waaye war si moo war sa moo fi tasaaroo te war sa itam kat. ci naafeema lañ koy jëlee. ci lañ koy jëlee. wala nga ne naafeema moo fi tasaaroo woon. wala nga ne moo fi tasaaroo te naafeema itam. te naafeema ci war sa lañ koy jaaree. ci war sa lañ koy jaaree. biñ demee ba tukki mi bëri. Eh, jaxasoo bi bëri. jaxasoo bi bëri. Hafsa ba. lañ fekk kaamil ak Hafsa ba. jëlee ci Haasim. ba mu jëlee ci Haasim. doon ko jàngalee Kóofa. mu tasaaroo ci place yi ñuy tukki. yi tukki. tukkikat yi indi ko. ko. tasaare ko fi. tasaare yi tabe ci lool. ci lool. ñu ne mayee kaamil. ñu ci lool. lool. moo fi tasaare de. waaye kay ci bu njëkk moom. waaye kay ci bu njëkk moom. Sénégal. fii ci Sénégal. aamatan. aamatan. li ñu uh, xamoon mooy xiraatu warsa. li ñu xamoon mooy xiraatu warsa. xiraatu naafin. xiraatu naafin. bi riwaayati warsa. bi nag. mu ne Fuuta nag. ñoom balañ daan wax nit kàng dëgg dëgg dëgg dëgg. daan wax nit kàng dëgg dëgg dëgg dana man ñaari. dana man ñaari. naafi qiraatu naafin bi riwaayati wars bi riwaayati wars qiraatu xaaloon man ñaari ci fuuta ci lañ daan waxe nit ci lañ la lañ daan waxee nit kaang la waaye ñun qiraatu xaaloon waaye ñun qiraatu moom itam tasaaroog téere yi ak tukkikat yi. ci lañ ko xamee. waaye Saalum gi nga xam ne fi lay waxee. waaye te ñoo tax mu da wax itam. te ñoo tax mu da bi riwaayati warsa. moom lañ xamoon. moom lañ xamoon. waaye nag. waaye nag. bëri sonjaan ci daara yi. sonjaan mooy. sonjaan mooy. mag moo xam dafa dem ba da mag. mag moo xam ne dafa dem ba a dogu ne dana mokkal alxuraan. alxuraan. bëri sonjaan ci daara yi. bëri sonjaan bëri sonjaan ci daara yi. yàq na. yàq na. qiraatu naafin. qiraatu naafin. bi riwaayati wars. wars. ba doxatut ko. ba doxatut ko. te doxul leneen itam nag. ndax ku la ndax ku la duur xiraatu wars. duur xiraatu wars. duur xiraatu xafs. duur mu ne amul. amul ci benn kaang amul moo xam ne loolu sa njàngin la. boo xam ne loolu sa njàngin la. xiraatu wars bu ñu yàq la. xiraatu wars bu yàq la. li ko indi itam nag mooy. li ko indi mooy. bëri sonjaan ci daaray alxuraan yi. bëri sonjaan ci daaray alxuraan yi. dem ba mag dikkal la. dem nga door a dugg ci njàng. ci njàng. ba nga duggee ci njàng. maanaam rus nga. rus nga. magam jëmm. magam jëmm. ñu sax da ko sax. ñi sax ñi ñi ñi sax da ko sax. bañ ko sayee lu tuuti ba mu yaakaar ne fer na rek. bañ ko sayee lu tuuti ba mu yaakaar ne fer na rek. mu commencé da jàngal boppam. mu commencé da jàngal boppam. ci la waxee xulu xulu uuhiya. ci la waxee xulu uuhiya. waaye bu fekkoon dafa déglu ñu sako. waaye bu fekkoon dafa déglu ñu sako. dañ ko wax ne xulu hiya la ñuy wax. ko wax ne ko la ñuy wax. ci la waxee xuli innamaa. ci la waaye bu fekkoon rusut ku dañ koy waxoon ne ko xulin namaa la ñuy wax. sonjaan bu bëri ci daaray alxuraan yi. sonjaan bu bëri ci daaray alxuraan yi. moo fi indi njàngin woowu. moo fi indi njàngin woowu. jàppal nañ leen gànti tam. jàppal nañ leen gànti tam. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne. ndax yonent bi dafa waxoon ne. kii ñëw ci alxuraan. kii ñëw ci alxuraan. kii ñëw ci alxuraan. kii ñëw ci alxuraan. almaahiru bil quraani. almaahiru bil quraani. mina safaratil kiraami. mina safaratil kiraami. muy bokk ci malaaka yu tedd ya. muy bokk ci malaaka yu tedd ya. wala si yaqra'ul quraan. wala si yaqra'ul quraan. wa yatataxtau bihi wa huwa alayhi saaxun lahu ajraani kii jàng ajra alquran da ko nat nati mu métti ci moom lool dana ci xam ñaari tiyaabo ñooñu nag da jàng alquran da ko nat nati te nag eh, eh, eh, seen jumtu lu mu rëy rëy te nag seen jumtu lu mu rëy rëy ñoom dañu xam ñaari tiyaaba. ñooñu nag. ñoo fi indi njàngin woowu. mu ne seen maam alaaji Aliou Faatu nag. mu ne xeeti ji loolu liggéey na ji lu bëree bëree bëree bëri. soxna fii ci Saalum sax. boo daan jàng njàngin war sa woo xam ne wu dëggu la. boo daan jàng njàngin war sa woo xam ne wu dëggu la. dañuy wax ne yaa ngi jàng njàngam jaamal. ba ñoom li ñu moomale woon njàngam jaamal noonu. moo di xiraatu warsa waaye bi ñu demee ba xam-xam tasaaroo lañ ko door a xam lañ ko door a xam waaye alxuraan moom daan nañ ci yàq baat yàq baat yoo xam ne daan nañ ci yàq baat yàq baat yu xam ne jéggi na dayoo na ci wàcc yoon ci wàcc seen maam nag jubbanti nañ ci lu bëree bëree bëri lu bëree bëree bëree bëri noor si nañ jaamal noor si ñi jubbanti seen làmmiñ nañ cooyeen noori nañ cooyeen ci alaaj Matar Xuri ñu jubbanti seen làmmeñ dem nañ koli dem nañ koli ñu jubbanti seen làmmeñ daar yi nga xam ne ñoo fàqee koon ci jaamal daan jàngale alxuraan daan jàngale alxuraan nit daan nañ ci dem ñu naan jàngam jaamal jaamal la la ñuy jàng ndeketewoo li ñu daan wax njàngam jaamal. mooy wars warsa bu dëggu bi. mooy warsa bu dëggu bi. waaye warsa bi nga xam ne dañ ko bind. waaye warsa bi nga xam ne dañ ko bind. waaye jàngkat bi waaye jàngkat bi nag du jàng liñ bind. jàngkat bi du jàng liñ bi du jàng liñ bind. loolu moo tasaare woon ci réew mi. su ko defee nag. su ko defee nag. Eh, bu ci suñ jamono jii. bu eh, nekk. loolu moo fi nekk. njàngam warsa. njàngam moo tasaaroo woon ci biir Sénégal. moo tasaaroo woon lañ xamoon. Saalum yi nag. dugg na ci biir jàng yi. dugg jàng boo dem. ba jàng da ko fekk kenn ci ñaari jàngin yi. da nga waaye ñoom warsa la jàng. waaye ñoom jàng. bi riwaayate warsa. warsa. wala Haasim bi riwaayati Hafsa. wala Haasim bi riwaayati war bi riwaayati Hafsa. boo demee Fuuta nag. boo demee Fuuta nag. ñoom ñu ñaaralee xaaloon. ñoom ñu lee xaaloon. ñu ñaaralee xaaloon. xaaloon. lii bi ni seen mbir demee. mu ne lii bi moo tax ñoom seen kaamil bi nga xam ne moo doon seen kaamilu nguur. moo tax ñoom ba seen kaamil bi nga xam ne moo doon seen kaamilu nguur. moom xiraatu xaaloon la woon. moom xiraatu xaaloon la woon. waaw boo bëggee njàngam xaaloon moo xam ne mu set wécc lay doon. boo bëggee njàngam xaaloon moo xam ne mu set wécc lay doon. kaamil kaamil njëriñ. kaamil libi yi. ñoom seen kaamil nguur. ñoom seen kaamil nguur. njàngam xaaloon lay doon. njàngam xaaloon lay doon. njàngam xaaloon nag. njàngam xaaloon nag. ak njàngam war sa seen sore bëriwul. ak njàngam war sa seen sore bëriwul. ñoo bokk. ñoo bokk. foo xam ne fii nii. foo xam ne fii nii. fi lañ jëlee. jàngalekat yi liñ moom ci waxtaan wi. mu moo ne li gënoon ci ak ab jàngu. moo mu yore benn njàngin. mooy mu yore benn njàngin. xam ne kum dalal jàng. xam ne kum dalal jàng. fekkere baa mooy mottalee. njàngin woowu rek laay dégg muy jàng. njàngin woowu rek laay dégg muy jàng. su ko bayee koo. ko mokal alxuraan. mokkal alxuraan. te mokkal ko ci wenn xanam. te mokkal ko ci xanam. boo xam ne itam. te mën naa am du ko jaxase. mën naa bu yàgg lañ waxoon ne. bu boole ñaari jàngin yu bokkut. mu ngi mel ni yow. mu ngi mel ni yow. nga jël diw ñor. nga jël diw ñor. ak lem. ak lem. boole ko ci benn kaas. boole ko ci benn bëgg koy naan gis nga diw ñor moom kenn. neex na. boo ko jëriñoo woon. dana la amal njëriñ. dana la gis nga lem moom kenn. neex na. boo ko jëriñoo woon. dana la amal njëriñ. dana la waaye benn kaas. nga def ci lem. nga def ci diw ñor. ne man lii laa da naan. doo ci bëri wétal de. man de jàng ñaari njàngin yëpp laa di jàngee. mu ne ñaari njàngin yi nan laa waxee ci benn jamono ñaari njàngin. mu ne salaam yi naka laay jàngee ci benn jamono ñaari njàngin yi. gune goo xam ne gii dafay tàmbalee jàng. gune goo xam ne gii mu. nan la ñuy fexee ci wars. mokkal alxuraan ci wars. mokkal ci hafs. mokkal alxuraan ci hafs. te du ko benn jamono. te du ko mos a jaawale benn jamono. yombut de. yombut de. jàngalekat yi bu ñu bëggoon a dimbale taalibe jàngalekat yi bu ñu bëggoon a dimbale taalibe boo sampee jàngu. boo sampee jàngu. da ngay sax ci mel ni njàngin. da ngay sax ci mel ni njàngin. jaar ñëpp. da ña fa moom la njàngin moom njàngin woowa. moom gis nga ña jaar noonu la. la. suñ bëggoon seen mokkal sax. suñ bëggoon seen mokkal sax. njàngin wa nga xam ne ci lañ yar. ci lañ leen yar. ci la ñuy sax. ci la ñuy sax. buñ ci saxee. saxee. seen nag mokkal alxuraan. seen mokkal alxuraan. mën sax mën naay sax. waaye foo dem rek boo yóotoo kaamil. waaye foo dem boo yóotoo kaamil. bëgg jàng bëgg jàng. kaamil boo njëkk jot rek. kaamil jàngee booba jàngee booba. te bokkut ak yow ba nga mokkalee woon. te bokkut ak ba nga mokkalee jékki ba. da nga boole lem. boole ak diw ñor. ci benn kaas. ci ñi gis nga njàngin yooyu yëpp dëgg la yëpp dëgg la waaja waaja danaan jàng maaliki yow mi diini danaan jàng maaliki yow mi diini maaliki yow mi diini maaliki da ci xam nag da ci xeliyaar ci xelam ci xam boobu moo ko may xeliyaar boobu moo ko may mu gént mu gént gis ko ko wax ne ko gis ko ko wax ne ko ndax yow ndax yow xàmmee nga xàmmee nga. maaliki. maaliki. ak maliki. ak maliki. xanaa yoo xamoo ne. ne. maaliki mooy ki moom. maaliki mooy ki moom. te moom jeex. te lim moom mën naa jeex. maliki. maliki. mooy moom. mooy ki moom. moom du jeex mukk. mu ne comme noonu la ko gént gi waxee. mu ne comme noonu la ko gént gi waxee. moom bàyyi na maaliki. moom kon mu ngi dafay mujj léegi da jàng. maliki yawmi diini mu di jàng maliki yawmi diini mu di jàng maliki yawmi diini mu di jàngee maliki yawmi diini mu di jàngee maliki yawmi diini benn bis ka ko feeñu woon dellu ko feeñu xaat ne ko xanaa xamoon ne benn xaraf xanaa xamoo ne benn xaraf ngi la fay fukki xiw te yow sa faatiha ji ji léegi manqué na aw xaraf alif gi nga ci daan jàngale. alif gi nga ci daan jàngale. ñu léegi bàyyi nga ko. yow léegi bàyyi nga moo tax nga xam ne. moo tax njàngin yëpp ci sawaab la nekk. la nekk. waaye sax. waaye nag sax. moo ci gën. moo ci gën. moo moo ci gën ci akub sañ daara. moo moo ci gën tam ci akub taalibe. jaamu yàlla boo xam yàlla boo xam ne nag. moom daay waxaf. moom daay waxaf. mu tudda mokkal. mu tudda mokkal. mu tudda ñàcc. mu tudda ñàcc. du dafa mokkaloon bëgg mu del saat. du dafa mokkaloon bëgg mu del saat. moom bu yootoo ci bibliothèque am. bu yootoo ci loxoom kaamil bu mu njëkk a jot rek. mu jël booba jàngee ko. waaye jàngalekat moom. moom. sax ci benn jàngale. sax ci moom. moo gën ci moom. sax ci mel ni njàng. moo gën ci moom moo gën ci moom. Sénégal dañoo amoon chance bu rëy. mu ne Sénégal dañoo amoon chance bu rëy. boo xam ne bii nii. boo xam seen culture bi. seen culture bi. li ci bëri ci li ci bëri ci la juddoo. chance boobu nag bunt bu mu doon béyee chance boobu nag bunt bu mu doon béyee ko. ci lañ teg ay mool. ci lañ teg ay mool. bëgg koy sakk. bëgg koy sakk. moo ne. moo di ne. xiraat yi liñ bëri bëri bëri. xiraat yi liñ bëri bëri bëri bëri. xiraatu warsa moo ci gën a jafe. xiraatu warsa moo ci gën a jafe. xiraat yi liñ bëri bëri bëri. xiraat yi liñ bëri bëri bëri. xiraatu warsa moo ci gën a. xiraatu warsa moo ci gën a jafe. xiraatu warsa mooy. xiraatu warsa mooy. njàng moo xam ne bu fekkee ci nga jàngee alxuraan. njàng moo xam ne bu fekkee ci nga jàngee alxuraan. soo fa bayee ko. soo fa bayee ko. ñaari fan ak ñetti fan. ñaari fan ak ñetti fan. njàngin woo jéem rek man ko. njàngin woo jéem rek man ko waaye beneen jàngin laa jàngee. waaye beneen jàngin laa jàngee. mën naa jàngal mën naa jàngal sama bopp ba xam xiraatu warsa. tuuti ko ko noonu ñu ne nag buñ léegi nag buñ ñu bàyyi xoon. jàngee wars. ñu da jàngee kon dañuy dem a dem ba. kon jàngi bu jàng rek. ñu bëgg a jàng jàng rek. ñu bëgg a jàng rek. Eh, dañ ko xam. dañ ko xam. ndax warsu day njàngin woo xam ne. ndax xam ne. boo ko xamee xamaale la yëpp. yépp ko xamee xamaale njàngin yëpp. Sénégal. ne Sénégal. Eh, masabu Malick moom lañ xamoon. masabu Malick moom lañ xamoon. masabu Malick. masabu Malick. dadee masab boo xam ne soo ko xamee. dadee masab xam ko xamee. masab yëpp xam dalay yomb. masab yëpp xam ko dalay yomb. ndax masab duhul lu mooy. ndax masab duhul lu mooy. sukkandiku ci alxuraan. sukkandiku ci alxuraan. ak hadis. xem ca képp nag. xem ca képp nag. te doo yokk leneen. te wala. wala. nga boole ca xiyaas. nga te topp ko nag lool. te ba mu jéggi dayoo. ba nga boole ca xiyaas. nga boole ca te bañ xóotal. te koy xóotal. na masab xam ne. am na masab boo xam ne. xiyaas la topp gëm ko lool. xiyaas la xam ne. am boo xam ne. mu ngi topp alxuraan ak sunna gëm ko lool. mu ngi topp alxuraan ak sunna gëm moom. dangay Malick ngay sukkandiku ci alxuraan. da ngay sukkandiku ci alxuraan. ak hadis. ak hadis. bu gisul alxuraan. bu gisuloo hadis. nga xiyaas. waaye doo am alxuraan ak hadis ak hadis bu paree da xiyaas. te keneen da nga xam ne xala ci pegg alxuraan. te keneen da nga nag. dikk ci digg bi. nga xam ne. nga xam ne. day sukkandiku ci ci alxuraan. ak hadis. bu alxuraan ak hadis xamut. mu xiyaas. keneen ka moom. keneen da koo rëyal lool. xiyaas da lool ba tax daal. bu gisul hadisu sahi. moom day gaaw a xiyaas. masawu maa leen hadisu xasan du ko romb da xiyaas. mu ne masawu maa leen hadisu xasan du ko romb da xiyaas. masawu maa leen mi nekk ci digg digg digg digg fiq. masawu maa leen mi nga xam ne mu ngi nekk ci digg digg digg fiq. lenn fiq féetee ko ndeyjoor. lenn fiq féetee ko ndeyjoor. lenn fiq féetee ko càmmooñ. lenn ci fiq féetee ko càmmooñ. lenn fiq féetee ko ndey ci càmm soow. lenn ci fiq féetee ko soow. lii féetee ko penku. lii féetee ko penku. boo ci jàngee. boo ci jàngee. ba bëri xam-xam. ba bëri xam-xam. wax dëgg masaab yëpp sa kumba dañ na ci. wax dëgg masaab yëpp sa kumba dañ na ci. su fekkoon ne loolu ci lañ sax. su fekkoon ne loolu ci lañ sax. masaab boo jàngee masaabu boo jàngee masaabu boo boo dugg rek xeewu ci. masaab boo dugg rek yeneen masaab yi. yi. demeewul noonu. demeewul noonu. gis nga ñun ñii. gis nga ñun ñii. ñun ci jublu. mu ne te ñun gi Sénégal la ci jublu. dañoo amoon chance bu rëy. dañoo amoon chance bu rëy. fi xaqli lasxar yi. fi xaqli lasxar yi. ci lañ tegoon suñ tawhid yi. ci lañ tegoon suñ tawhid yi yëpp. xaqiidatul imaamul lasaari. xaqiidatul imaamul lasaari yi. ci lañ tegoon suñ suñ tawhid yi yëpp. ci lañ tegoon suñ tawhid yi yëpp. gis nga xam pas-pasu limaamul lasaari yi. gis nga xam pas-pasu limaamul lasaari yi. moo gën a jafe ci xeeti tawhid yi. moo gën a jafe ci xeeti tawhid yi. moo gën a gën a jafe ci xeeti tawhid yi. moo gën a jafe ci xeeti xeeti tawhid yi. jabari yee lañ wax. mu ne jabari yee lañ wax. xam ko yomb na di. xam ko yomb na di. jàmm bi dañ koy forcer muy def. jàmm bi dañ koy forcer muy def. waaw. xadariya lañ wax. xadariya wax. xam ko yomb na di. xam ko mooy defal boppam. jaam bi mooy defal boppam. waaye masaabu limaamu eh, limaamu la saar mu ne jaam kay. jox nañ ko kattan. jox nañ ko kattan. lu may defee. lu may defee. waaye dañ koy xew ci saanu. waaye nag dañ koy xew ci saanu. bu nekkee di tëb dal. bu nekkee di tëb di dal. feeg saanu gi jeexut. feeg saanu gi jeexut. bu ko neexee muy tëb di dal. bu ko neexee muy tëb dal. waaye saanu gi nag fu mu jeexee. waaye saanu la ca des mënatul ca dara. la kon ñoom. kon ñoom. wax nañ ne. wax nañ ne. dañ doon nekk jamono. dañ doon nekk jamono. dañ nangul jaam bi ne mën na dara. dañ nangul jaam bi ne mën na dara. waaye am na foo xam ne waaye am na foo xam ne dañoo xam ne man-manam jaam bi fi xam ne man-manam jaam bi fi li ci des man-manam yàlla la. xaqiidatu limaam la sànq yi. boo ci jàngee tawhiid. boo ci jàngee tawhiid. ba man tawhiid. ba man tawhiid. bépp téere tawhiid boo gis rek. bépp téere tawhiid boo gis rek. bépp xam-xamu tawhiid boo gis rek. bépp xam-xamu tawhiid boo gis rek. xam nga ca xam-xam. xam ca xam-xam. moo tax eh, sababu Sénégal sen culture xóot. mooy xiraatu wars. mooy xiraatu wars. dafa am bu xiraa yi. dafa am bu xiraa yi. masabu bu masaahib dafa am bu masaahib yi. xaqiidatu limaamu lasaari yi. dafa am bu xaqaayid yi. mu ne ñetti yooyu ko ci géej. leneen lu nit ak moom. leneen lu nit ak moom. boo dajee moom rek. boo dajee amee wattu. boo da nga mën a tànk. ba sa beñ waar fees. waar fees. da nga mën a tànk. da nga mën a tànk. ba sa bëri ko fees. mbokk yi. mbokk yi. lii moom laay mujj a wax. mu ne lii moom laay mujj a wax. ci waxtaan wi nga xam ne moom la doon wax. da nga waxal ñi ma bokkat daara. da nga waxal ñi mu bokkat daara. ñi mu bokkat daara buñ ko dégloo. ñi mu bokkat daara buñ ko dégloo. ñëpp dañ li ma wax yëpp dañ ko mën a xam. mu ne li mu wax yëpp dañ ko mën a xam. ndax man ak ñoom ñoo bokk làkk. ndax moom ak ñoom ñoo bokk làkk. keneen ku mu daara. ku mu bokkatul daara nag. bu ci bëgg a jëriñu. mën na cee mën na cee jëriñu. waaye nag bu ci gisee loo xam ne ak moom bokkuñ ni ñu ak ñoom ñaar bokkuñ ni koy làkkee. bu mu wax ne damaa mën da làkk. bu mu wax ne ki doon wax lii dafa mën da làkk. dafay wax ne. dafay wax lii xaama ko. man de lii laa xam. maa ngi koy xamal ne ko. mu ngi koy ne ko. man ñi may waxat. moom ñi may waxat. xam nañ li mu xam nañ li wax. te ñoom la doon waxal. te ñoom la doon waxal. wasalaamaaleykum wa rahmatulah. wasalaamaaleykum wa